di nuyu képp koo xamante ne aussi yaa ngi ci làmb ji di la jox sa wàccuwaay ak euh, internautes yi nga xamante ne aussi ñu ngi valider li nga xamante ne euh, ñun ñu ngi koy def donc di nuyu ñaari mbër yi ah ba ci kanam xam naa. gis ngeen di ñaari mbër yi ba kanam tey nag ma dalal fi ki nga xamante ni mooy Wassintor ak 5 tonnes mbokk yi mu nekk combat boo xamante ni ku ne bëggoon na ko promoteur yu bari doon nañ ko xëccoo waaye yàlla dogal na Habib décroché na combat bi ma bàyyi leen ñoom ñaar nuyoo defe naa ne xiifante nañu. ñoom ñaa ñu nuyoo ñu doog a waxtaan wi gis ngeen ku ci nekk jël na benn pot daalam teg ci ko table waas nuyu naa la. waaw bisimilah ginnaaw bu ñu sant yàlla julli sonante bi di sant suñu ñetti waajur di sant sama yaay di sant sama papa di sant samay maam di sant képp ku toog fii di sant gox ba ma jógee mooy ñàccu ker Dakar plateau bi. Mhm. bàyyi ñu benn koñ. di sant sama waa dëkk waa Ndiassane sama mbokk xaadar yi waa kër Cheikh Mohamed Kountala di sant kii ma àndal expect ak sama gars yi mafia bi booy balaa ñoo ñëw dañoo réunion quoi parce que xam nañ ne xaal laa am koo xam ne damay ñëw rek xaar xool leneen mooy loolu waxtaan nañ ba jiboo sama ànd ak sama manager persooru lu ma ne rek mu ngi ci mooy loolu. waaw di sant nag Cheikh bu ndaw di sant képp koo xam ne day jàppale waas di ma ñaanal di sant sama maara yu may ñaanal mooy loolu. waaw di sant ñëpp nag bàyyi ma kenn rawatina gox bu ma dëkk muy caawoon kunde sama goxu yaay waaw. nuyu nga ma noppi. waaw. waas aja cinq tonnes boog ñëwal. waaw onze bi laa bisimilah rahmaani rahiim saani nesere saani bolere saani bul yaanu boo cet góor ñi teeñu leen jigéen ñi yenn ba ca kaw mooy loolu waaw di wax ginnaaw bi sant ah. mm. di sant suñu ñaari waajur di wax 5 tonnes benn ndaw la bu judd 1997 ans ah. sixième mois troisième jour hôpital Ndamatou 23 30 si si faire de présenté woo loolu di bëgg dof yëpp di bëgg képp koo xam ne da ngay bëgg 5 tonnes yeewoo sama gox mooy géejawaay di nuyu àdduna ndax 5 tonnes 5 tonnes partout la. di wax mention dof bi comprendre nga. di ñaanal waa àdduna ñi nga xam ne ñu ne ci kaso bi tamit yàlla génne leen xama ku si mel ni bébé jéen ñu ngi koy ñaanal xama ni ko caay féete ginnaaw mu ñëwaat xama ndax suñu grand frère la buñ bëggee laam si moom de la part bokk na si daal comprendre nga di ñaanal képp koo xam ne da nga ne si hôpital tamit xama boo wéree wér yàlla suñu borom may la wér boo wéree dee nga dee mu noppal la ni ndax lim décroché yombul. Mhm. ndax combat bi ñu ko bëggoon bari nañ. ba su ma juumul tey suba rek ki doon sama téléphone am naa si quatre appels ci benn promoteur xam mu ngi koy ndax waxuma ko mhm. kon su ko décroché dañ ko ci sant ndax lambe xale la décroché quoi. Mhm. su ko neexoon tey xaalisam mu yor ko dem xam ne dañuy ñëw Leewtoo lamb ji jeex. mais boobu léegi mu ngi tëgg mais jàppale jeunes yi di ci rey xam nga di daj lu ne si lamb ñu ngi soog toog xam nga. loolu noonu dañ ko ci remercier daal di ko wax ne fi mu teg tànkam noonu la te xam ne yoon ndaw du gaaw quoi vraiment ñu ñu ngi boot si ginnaawam rek di ko ñaan xama surne bi tamit li mu ci bëgg ak ambition bi mu ci am xama ak tey wa àdduna ndax lii du lambu comme lambu ay supporter lambu amateur la mm-hmm. ndax booba léegi ku ne ñu ngi koy ñu ñu koy lii quoi di wax benn message boo ne bu am solo dama koy jàllale benn booy boo jàpp mooy 6000 problème mm-hmm. ndax dafa defoon vidéo di ma saaga def lu ne ndax nit ku ndayam xamoo lu ko ndayam boote mm-hmm. loolu jaru ko comprendre nga di ñaan nag maa ngi ñaan yàlla na génn fa mais sama ambition li ma bëgg man yàlla na fa am 300 ci barke Seydina Mohamed loolu laa bëgg man wax jeex. mais sa diggante kii coow li bàyyi woon na promoteur yi ko bëggoon bàyyi sa diggante ak moom lan la. waaw sama la a bëre di a bëre ak man sama choix nekkutoon moom dama amoon ay choix yu ma tegoon waxoon naa la ko non mhm. comprendre nga kenn ki dem ba si bëgg a bëre ak man man ma tourné pour bëre moom mais nekkul loo xam dama ko jiitu si làmb mais dafa nekk làmb joo xam ñun làmb lañ fi nekkal. Mhm. te ñun ay ndaw la ñu war a am tur. ne bokk suñuy coow kon suñu gisee làmb joo xam làmb kot la ñëpp di ko bëgg di ko gën a nooy ci mbër. waaw dama lay leeral rek waaw may ko mu jàpp ne la mais man li ma gëm mooy maa ko man man kenn ku dul moom loolu ça ne concerne pas tubaab ne il faut le mor la sotte pour déwén kay loolu amul leneen yàlla dogal na taxaw na kay soo ay taxawal na ko moom gëm na ne moo man bu jour ba na ma rendi man su ma ko mënee rendi amul leneen. mais mais wuy ma man lamb yi ma bëree yëpp a metti man musuma bëree lamb ju gaaw comprendre fi ma la waxee. Mm. man ku seetaan samay làmb man a ay as gaawan ak ñeneen ñen man musuma bëre ju gaaw non sa diggante kii moom dama ma ma jëkk daan ko moom dañuy xeex doo ko bëre ndax xamul tax ni ba taxaw di weej weej noonu laa ko dumaa daan ko kii as gaawan as gaawan top 5 la ko yóbbu da ko ba mu xalangu barki Seydina Mohamed jour boobu boobu amaguma licence barki Kourou Saay ma ñëw seetaan si sama diggante moom du yomb Ousseyn boobu lañ ko boobu lañ ko yóbbu top 5 muy top 5 yow da nga na fekk waaw alang Ousseyn man bool 11 combat laa fa bëre am fa 6 kaw ñu bëre bool ba taw yàgg naa la ko wax ne bàyyi ji xel mën a bëbi waaw 6 kaw laa ca ma ñëw ma ñëw bëre Bébelton fii laa toog Bébelton toog fee ma ne la kii bu dof dof lee barki ru sa combat de zéro man bëgguma nekk fi di yàq ay bébé Ousseyn nañ ci génne Bébelton géej waa la man sama taay dama dimbali ci lamb dama ay ci ponkal yi ci pon genre genre catégorie yi parce que ñiit puusuñu paasuñu seen yaram nii lañ yor rek kii ay ay peole Gambie la barki ay kii waay kii Ousseyn Ousseyn barki nañ may gudd fan wér rek combat bi barki Rasulaay ci la ma nit ma xam kii keroog laa ko jàpp arène nationale dama dama eh. duma ba mu naan suuf loolu mu wax noonu bu doon doon percune barke Serigne Bamba dama lay yan sabar nga wàcc yow maa mën a yow percune yow maa mën a sabar yow yow ma sut la foofu tegalu métti xam barke sëñ Bamba Mbacke boo dégg wuy ma la ñaan promoteur bi la lay ñaan promoteur bi la lay ñaan promoteur bi ñaan moom laa lay ñaan loo ko ñaan moom eh, ma la moom ah, premier premier face barke Roussaay maanaam moom bu ñuy bu ñuy ñëw ku ne andi ak ngemb barke Serigne barke Roussaay moo ko tere eh, physique ak eh. ngemb ku ne andaale man maa la gën a con de ma daan ko 19 yow dama laa koy daan daan 19 jël la barke yàlla dama daan 19 jël la. Serigne Bamba ko waa kay waat boobu la gëmoo ko wallaahi la si la. kii yow yow sa sa ñeme yàlla mais a boo dàqoon bëre nga say victoire li say victoire li say victoire

maa la gën a pare fu ñu a bàyyi ko kii lii la si am barka a man Serigne la ma lay bool onze combat la fa bëri am six KO yooyu ay septième bi yooyu ay booy kii Njaay laax mi duma bu yàgg moom yow yaa Njaay laax xaw laa rey yow duma bu yàgg yow mënoo ma yëngal yow arbitre dante ngay fanaan yi bu nekkoon arbitre dante nga naan ma maa fu maa la boole cinq toogal. waaw yow wóor na Serigne Touba Mbacke laa wax non yaa ngi ma dàll ba toogal toogal. bilaay walaay ma dàll ba pare de. sama diggante yow du yomb booy. sama diggante yow du yomb lamb ji du yomb. toogal toogal wóor na yàlla. gis ngeen mbokk yi parce que combat bi nii moo war a dàq sa gànnaaw kon parce que boo defee barke Roussaay bilaay walaay boo amul ay mbokk sa bëñ ñëpp dinaa ko dindi. waaw defal may ma mu leer laa la wax waaw yow. waxal Ousseyn dama. gis ngeen mbokk yi Ousseyn xool xam nga man yow yow yaa ma yab sax yow genre boo yi nga may boole ñuy wax may tontu sax ni mu demee na la wóor ne ah timisel nga woote. barke Serigne Bamba at ah, ma. non far yow da far yow da ngaa far. non farul de dëgg la yaatee. yow mosoo daan ba pare nga naa ma nii. yow da ngay yabaat léegi ñu ma du ñu barkaal ñu ma part dañu fa réfléchir. waaw yow yow na nga fa toog gis ngeen mbokk yi li lancement bi la Habib lan nga wax ci lii lii li ma ci wax mooy que ne ñoom dañu ñëwoon ku ci nekk. xam sa adversaire mm. du signature contrat du dara. Mm-hmm. comprendre nga parce que signature. mais Habib lamb ñëpp a ko bëgg. lamb ñëpp a ko bëgg waaw ko bëgg waaw lamb ñëpp a ko bëgg. su la ko yàlla su la ko yàlla. deux zéro laa ko dóor deux zéro laa da laa pat waaw mi bu lépp amee moom la ndax vraiment combat bi ñu bari ñu ko dox moom xam na si dara comprendre nga bëgg koo décroché Matar Ndiaye nga sama menacé du ma bàyyi ma fen comprendre la kon Ousseyn moom mbër yëpp la fi nekkal sànq maa ngi naan dafa far mais mun na far loolu ça ne concerne pas yaa ngi dégg mais ñu ngi ñaanal xam nga yow ñi nga dëggal sax man lañu faral Aliou Seydou bi nga dëkkal man la faral bu leer laa la wax Ousseyn dañ koy ñaanal parce que sonn na ci lépp parce que moom parce moom mi taxawal combat. waaw waaw li ma wax sànq laa ci waxaat. Mm. li mu décroché dafa yomb ndax xam moom xaw ma. Mm. na xaw ko xamul kii. mais comme nu mu mën a defee gëstu xam nga xam kon jeunes ñoo ko ñor te dama gis comme làmb mu si dund ay tolof mm. ñu la apporter dara donc am nañu ay supporter am lépp mais comme dañuy génn pour day amateur yu xam ñu comme tey exemple. bàyyi ko mu da ngay bàyyi dañuy rendre hommage Habib da la ñuy rendre hommage bu abar ñu àggale waaw baal ñu rendre hommage Habib ba pare eh, waaw baal ñu rendre c'est yow Ousseyn yow da nga may yab yow yaa ngi dégg ñu ngi lay ñaanal tey li nga xamee moom nga bëgg si làmbu yàlla na ko suñu borom defal ci barke Seydina Mohamed ndax vraiment su neexoon xama tey ñun ñi nga xam ne ay jeune tey ñu nekk ay adolescent doo ñu génn doo ñu def dara comprendre nga léegi loolu noonu tamit ñu ngi la bu baax a baax di la remercier di la wax fi noonu la quoi vraiment di la mm. moom la moom nii ah, doo woote parce que boo woote làmb ja bu lee boonam lu ngay woote nag nga woote maa ngi woo ñëpp di woo waa géej waay di woo sunu maire xam nga tey koo xamante ni lépp la moom la vraiment sa papa la mooy ku ci mel ni Racine Talla koñ comme li ma yaa ngi dégg ndax bu tey exemple moom day dem ba États-Unis Europe fu nit ñi di fatoo moom ngir man comprendre man li ma am si lamb man rek maa ko am maay dem ci dëj nit ñi di fatoo man amul ko ko am hmm. parce que ay wow tam ngay wax moom a moom sa lamiñ bi nga naa ma nii yow doo li ma lay ñaan nag mooy drapeau bi dama bëgg nga tuddee ko Wally Seck man loolu moo ne dëgg la drapeau ñu ko bëgg bari nañ ñëpp mais man su ma soñoon ngay tuddee drapeau bi moo nekk sama option comprendre ma la ndax kii dama ko war a dara ma duma ko dem yow Ousseyn lu mu def sax xamu bu lay lu ngay sant danga sant fii de lamba ja man maa yor micro de waaw kii dama koy sant damay dama ku ci mel ni sama papa sama xarit ku ci mel ni papay bébé Yacine papay juddu bu yàggul mooy Mohamed mu comprendre ma la borom fi nekk Dakar foofu maa ngi ko sant moog waa banque bi yëpp comprendre nga di sant koo xamante ni sama xarit la sama lépp la mooy Abdoulaye bu défoncé ndax moom ma jëlee combat moom dasee bokk ndax su ma combat li mu si ñàkk dafa bari trop quoi day jënd bolok xama sonn ci àll ñu oto affaire yooyu noonu Abdoulaye bu défoncé Serigne Ndiol ma àndal nii xama ñu ngi Casamance fi toll nii ndax combat man bis jógee yàgg na comprendre ma la waxee di ko wax ne ko làmb rek yaa dégg di ñaan ndam lu set wi di wax tey képp koo xam ne bëgg 5 tonnes dof bi ak képp koo xam ne bëgg quoi a na na waaw man maanaam promoteur bi man bu ma ko xamee yàgg na na moom moo ma miinul mhm. parce que maag jarbaatam ñoo bokk benn ikiri mooy booy kireen mu nekk ni ikiri badajon ba foofu la nekkoon yàgg fa ba jëm yàlla tey jamono yooyu moom mu ngi foofu maa daan toogal maa daan téel ma gëm sama bopp liggéey ba yegg fi ma yegg. kon ñii nii maanaam. mais baal gëm sa bopp man maguma la baal gëm sa bopp man maguma la bu fi répété leneen waaw man 77 man 97 laa judd 6e mois 3 ma non dama jël temps wax. ah jëluma sama temps wax jàppale. voilà mel ni Ibra Thiam. amul ku ko jàppale xam a baax a baax ñoom Yanda Diop Issa Raki Mako doomam di sant sama ménageur Soro Fall ñu ma àndal ñoom sama mafia bi ñoom Duudu ñoom Aba ñoom Kimpembe booy bàyyi ma kenn parce que combat bi barke Roussaay bi laay walaay talaay gars yi sama yenn booy ñi ngi cee dugg. mais ma sama booy jàpp fee ne nu mu fi xeex bi am maa ngi leen wax bàyyi yomb Ousseyn. Egeren Egeren maa ngi nekk suñu ko ñu wàccee ñu ñu ñu bëri. suñu reliquat waaw danañ bëri waa xaaral jàpp sama ñaari booy écréne mu waaw Ousseyn mooy ci xeex fi am sama ñaari booy lañ fa jàpp. maa ngi fay ñaan pour ñu bàyyi leen pour ñu ñibbi si Sénégal mooy. da nga jàpp ne lamb waxu daf la bañal entraîné ci dëgg la. neex rek yow xamoo kuy naan siro. dañ koy may mais kii laa wax li mu foog moom koy ay siro ngay dundee ay siro ngay dundee humilier kii lay def liiru état am teel liiru état ngay mel ni jeeg nii. bàyyil ponte gi ngay fanaan bàyyil ponte gi ngay fanaan jeeg bi bàyyil ponte gi ngay fanaan déggal li ma la wax bu fekkee liñ day wax mooy loolu yow barke Serigne Touba Mbacke di nga xam ne laa muñu boole bis bu at bi tëjee géew bi di nga xam ne laa muñu boole barke leeru alxuraan combat bi rangi tangir la combat bi rangi tangir la rangi tangir arbitre bi arbitre combat bi leeru leer la arbitre bi arbitre combat barke Serigne Touba Mbacke su yeexee ma dal ci kawam arbitre bi arbitre combat bu yi laax bu yàq la yow li ma la tëjee la combat bi rangi tangil la yow may ki mu wax maa ngi waaw jàll Ami Collé di ziar ñëpp di nuyu Habib mi nekk muy le promoteur di jour di nuyu Ousin bi ñu woo ci plateau am fii ànd ak sama ñaari xarit sama doomu ndey muy Babacar ak Matu maa ngi leen nuyu di wax ne tëgg Habib tëgg na combat bu jërë tëgg waaye kenn du Ousin moom tamit moom bi nga xam ne moo taxawul bi combat ñu ngi koy remercier bu baax ñaari xale yi li ñu wax fii leer na nañu yaakaar naa ne bés boobu dinañ ko jëfe bu baax a baax diggante Wassintor loolu la loolu du far force la ami collégien xuma ami collégien xuma ami collégien li ma la mën a wax la ah? ah, ah, ami collé càndum sama lamba ma dañuy xeex ba pare dooga abi barke Serigne Touba waaw da may diglu yow da nga neex rek da nga neex rek man da si groupe bi ngay nekk di weej weeji yow da nga baax wax rek eh, xanaa moo ñoom Modou Mbaye gars yi waxoon na nee na boo àggee ba lu am saa doo may la mu wax ñoom Modou Mbaye gars yi waxoon nañu am doole àggale saraan Omar Sow eh. dama lay rey nga dee dama lay tur ba nga tëral sa bopp eh. waaw ñuy wax ne tëgg nañ làmb njar ndéem rek ndax li nga xam ne askan wi yëpp ko soxla woon promoteur yi di ko xëccoo Habib décroché na combat boobu ñu leen di jox rendez-vous rek bientôt te xam ne yàggatul dara di ngeen sëgg wax ji coow li coow li coow li ci pindum teen bi gaañi amul baax lañ jour stade la affaire bi na ngeen ko prouver Habib waaw xanaa di la jërëjëf rek Ouzin ah di la kontaanee bu baax a baax di wax ne eh, yëf yi fu mu toll wax dëgg si yàlla mun na ñu wax ne Ouzin la. te te ñu fàttali leen du grand combat bi. non non non. waaw lu grand combat bi de grand hmm. combat bi yegg seegul. waaw yegg seegul voilà kii euh, Aminata aussi vraiment. mais def ko drapeau ku am xaalis laa bëgg ngir yàlla gi dañoo war a tukki ñun dañoo war a daan ba pare tukki. mu ngi may jàppale donc mun naa wax ne euh, sama handicap bi yëpp moom moo ma koy doxal bi maanaam fépp fu ma mënul dem moom moo ma fay demal. Hmm. donc euh, ama am confiance ci moom ndax wax dëgg si yàlla jigéen bu mën góor la. dëgg la donc damay ñaan rek ñu ñaanal ko suñu ànd bi yàgg lool. amiin parce que am naa confiance waaw te incha allahu rabbi dañu dégg fu sore sore sore sore bu soobee yàlla donc di leen remercier ñaari ñaari mbëri di leen kontaane bu baax baax di remercier ñëpp ak ñi fi teew yëpp ah merci Ouzin ok gis ngeen mbokk yi nii lay demee waaw di woo waa lamb di woo suñu waa écrit ku ci mel ni waa géej waaye ku ci mel ni Aliou Seye 2 bu ko dagg Aliou Seye 2 ku ci mel ni gars yi Lac ku ci mel ni Balla Gaye 2